bismillahi wa ala millati rasul wa manhajil xadim jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul ngeen baal ma ginnaaw dalal gi ak nuyoo bi ma njëkk a wax ci loolu ci reconnaissance ci jërëjëf Cheikh Bamba Xaadimu Rasul ji ma wax professeur Sène dafa xër rek waaye bëgguma ku koy wax ba noppi sax di ma ca tudd ndax moom jutta bi mufradin lana faaxal jumal xutta lana mox ji jëy wa amal dafa distingué wu mhm. ku tedd ki booy wax ci moom ber ko murit yi nga xam ne ay nubbalaa u lañu bu ñu ne wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xayri qadimihi la ñuy wax te xuddaam yi xam nañ ñu bari na waaye li mu distingué woon tax yalu ak biral am na ma bëggoon comme ça dérange c'est dérangé malayka yi rek la dul dérangé ak suñu borom ñu leen bind ak ahlu badrin ak yonent yi waaye ñun ni ñuy defee jërëjëfe Serigne Touba ci sàkk ci xër ñun façon bi ñu koy defee ñun bambis yi dafay déranger dafa am ko faatu Daaru Moxti ñu koy wax Pape Samba mooy jiite woon liggéey ba may Daaru Moxti bamu faato faatoo man kenn xamuma di faral di dem ci ay arna ko ma la di dugg ci bàmmeel ba ma demee bi ñu koy denc di ko duggal ci bàmmeel bi ma dégg xale yi ne jërëjëfe Serigne Touba ma dugg ci bàmmeel ba nangu néew ba ñu fa jegee Serigne Bassirou Abdou Khoudoss ne ma yow de tey def nga lu ma jàpp yow xamuñu la sax ci di fekk ay rob waxuma laa di dugg ci ko ma ne ko jërëjëfe Serigne ba jàmm شكرني لوح عند جميع جنده مز حسد زيارتي من هنده لولا كنت بك wax nee ba ko yàllay sant ci kanam malaakaam yépp la ko waxee looloo tax ñuy def ay njooxe di ko ziyaare si Tuuba night and day moom xasadu ziyaarati min hindihi benn malaaka buy xëy di def liggéeyam te demul ziyaare ji Tuubaa dellu amul da xef ak xippi la wa ma amruna illa wahidatun kalamhi bil basar comme xef ak xippi suñu borom bu nammee day gaawee ne xef ak xippi man maa tuddee sama bopp le guide de la révolution pacifique pourquoi pacifique lan la ko tedd ki wax bi mu ñëwee malgré fi mu jaar yépp tama dess fi té seen kër yi aljana ya mako mom nga jox mom suñu borom nangul ko ko mu sédd la ko saaba jox leen ko ay adé mu ñew ni lan hafawtu anil adai quran ku ko déggul ku ko jàngul it di dégg lolu mo waral pacifique chaque chose nak en son temps le policier in ajal tahumuril insani ya'muru bi tadrij destin desu ko intellectuel waale destin yenn saa yi nga dégg borom xam-xam bu ne man sama destin dama koy jël en main un croyant un aspirant un aspirant véridique un aspirant véridique et intelligent wërta wax lu ndax ci xàqul mu gën la reposé wu loolu yàlla képp doon rekk kot kenn la ko jox ci ni maddaliyel xaqul mu binul xaqa wa bil khiyaral ulama araka gis ngeen ñom sidna abi ni da ngay nek savant ba nopi soog a soxla ko tedd ki ñu jox la auteur moo taxoon ma wax professeur professeur ñaan legi ni ko xamante ni bii spirituellement socialement penku lay taxawee duñu ko tudde coalition du siècle waaye bii day doon temporaire rek moom mu doon spirituel booba sax jigéen ñi ki koy jiite wax naa ko ba noppi tudd naa turam ca fan yee muy soxna ndey bu soobu soxna may mënatu galas góor ñi rek ko xamne mo moo koy jëwriñee waye jigen ñi mom tan nañ ko ci ba noppi ndax mu jàmbaar su ngeen gisee ma and ak Serigne Abdou mi ak sama rak yi ak sama doom yi Serigne Abdou ku na xamne sama digënté ak moom ci soxna Ndike ak Serigne abdou rahman Trondo ay dafa am fu jamono tollu man amaluma kenn njariñ ma woo ko sant ko lu ma ko mës sa sant ba nopi weeje ko nan la ko weejee mooy damaa jël Serigne Ousmane bu bàyyi Seex Xaddi rakkam bi ñu tuddee sama baay te muy sama jawriñ jël Serigne Mouhamadan rakkam def leen ci seede ni leen seen mag yi naa ko sant lu ma ko mos a sant day damaa bëgg mu nekk sama naayib naayib naayib mooy bu dul man yow loolooy naayib bu ma nee diis yow loolooy naayib waxuma structure de waxuma société waxuma association waxuma daayira waxuma kuréel waxuma parti waaw damay nekk xaayit mu na ibu xaayit ma lo leer bu ko defé comme ku nek ak lila yalla may dafa am yuma ma manqué le te gis ko ci mom dama yor sama fulay bopp te muy sama mbok di sama rak ñu sopanté te duma ma bañal dara ma proposé ko ko mu nangu ñëwuma mu nangu ko dem ci radio yi diko wax waxuma lool ndax bari wul wax daanaka ku ko déggoon ci temps yi yépp moy luñu laal <laughs> waye ma tax mais fofu dina fi ñew de yooyu yëpp naa fi ñëw tey du ma bàyyi dara du ma bàyyi dara de faw rek euh, nee naa ko nii ñu ko nacc nii ñëpp nacc nag bokk waaye sëriñ ñoo bokk ndey waaye du ñu ay seex te duyu góor ak jigéen itam dinaa ci ñëw ci kanam xale bu toll nii yor âge bi mu yoree depuis que mu bañ mu ñàkk nekk ak ministre rek léegi mu bind fi juróomi livre indil na ma juróomi livre ya benn bu nekk ak la muy caar mbat la ci xale yi mi ngi sunu kanam dinañ ko waxaat ba noppi bokk ci ñi njëkk a nangu coalition du siècle xamoo problème du du problème na Sidna yi sax ci biir waxam wax na léegi bani ba tudd nakar, nakar wala fa koy wax waye man nimay dundé dafa àndutal dafa dul mën and ak nakar waaw ni dundé munta and ak nakar ndax ko xamanteni ni sa mam buñ ko né diw dee mune alhamdullah ne ko diw nek ba dafa lak ci kawam lak na ba ñor xom dé mune alhamdullah buñ ko diw soxnam amna doom diw dam fa dam mune alhamdullah

waaye jii mii fu mu ko wax moom ko tedd ki fu mu ne xoolal lan mooy jii mii bu ne sama ñett yi parce que waxula ko da ko codé ayaatu rabbiya wa jii mii jii mii yooyu ayaatu rabbiya wa jii mii jooju lan lay bindee loo loxo nday joram ci lan ci xalima fu mu koy sëpp ci daaji loolu mooy jii mii lan la ciy bind waxi yàlla léegi nag bu àdduna bi demee ni mu demee lu nekk xew ba lii xew fu nekk ba ci gis ngeen mask yi nii seen naa bi mu ñëw ay teggi na tax mu xam ni fii kenn masque wul mu dindi ko rek waaye masque xew fépp ah waaw te kilifa ak ñëpp da koo jàngale xañ barki dembo nday lañ ko tambali takuko té da koy jangalé ngir rek faaw ñu jang Sing muntaka moy kan faaw ñu jang ko señ muntaka dañ ko ñi jang la dang koy jàng nekkul won ca magña daw ñu ko gis am yo xamni du ci xaba bal amul jotam man ñi ñu japp ni ci sama njaboot bi ma àndee Jili Sall bi Jili Sall bëggee wax ba ma ma ba ma fenn ko dana ko ah loolu pënd bu fi jaar di jàll rek ñu daal di dem ci leneen ba ma ko ne je vais def ne ma loolu moo mënta nekk daal di may wëndeel dugal ma ci beneen waaw loolu waxoon naa ko ci jamonoy sëñ Cheikh Mati lay ne damay exiler loolu yii Seydina Aliou mii di wax looloo ko waraloon njaboot gi màgg nañu ñoom Cheikh Mbacke nga ne hmm? suma demone wuti fenen fuma dekk football senegal dul Sénégal itam ñu taxaw njabot gi rawante nak bima ne sama waji borom sikim bi bima ko ne legi yow faaw nga don sama naib legi seigne Abdou yow ya dugg bay bo nga ñaan ma baña a exilé waaw ndax li ñuy tudde ay mushkilat pluriellement bi nga degg ku ne bi nga gis lu ne sëriñ Ousmane mom lim wara ñaan moy ma baña <laughs> ndax dina son trop kon bu ko defé bu ko defee lu simple la dañu ni Seydina Aliou moo ma ubbil bunt bi ndax dafa comprendre moom te ku tedd ki moo ni uri li wacci maliki sabila kulla muridin sadiqin nabila ku tedd ki du ko jóg rek mu ni la yoon waa ngi nii déedéet aspirant bi aspirant véridique bi et intelligent kooku lay woon yoon moo tax jëwriñ mënut a ñàkk njiit mënut a ñàkk kii nag mën naa jiite jeunesse bi moom loo ci mën a dégg ne ko ma ñëw ni ko Seydina Ousmane Sonko manee d'une part ni ko keneen manee d'autre part waaw kenn ku ci nekk ak sa domaine ñoom ñëpp a war a nekk benn dànk te ñii fi nekk Macky président Macky moo ki collaborateur am ñu yokk yërmande ji ci ñëpp Serigne Abdou am na loo xam ne barki démb moom mooy léppi Sonko te barki dimb laa koy soog wax nee naa ko bi élection présidentielle yi jub si dafa am kilifa gu ñëw nettali ma ni dafa gént Sidna Ousmane ànd ak Ousmane Sonko ak ñeneen ñëw ci man taxaw ma taxaw mu ne ma sëñ Muntaxa laa xamul nu ma koy def loolu nag rêve la waaye gént dina am interprétation waaw man la ma gént tel sama bopp te sama gént man maa koy interpréter sama bopp waaw bërki démb saxoo njaay yàggul soxna Fane Niang am na ku mu àndal muy nettali gént ba egg ci ne ma élection yii di ñëw da nga koo wërta fekke waaye daanaka daanaka la Baba joo waxoon Moustapha Niass ni ma sëriñ grand bi nangam dama ci dul jaar del la ak waw ak lamara baba jow bañuy wax ay affaire pétrole baba jow ni ma serigne grand bi nangam grand bi day del waaw lamara la ma wax léegi kooku waxoon loolu soxna fanyam bu tul moy jitu ndax man mom kenn duma adresser yoy parce que man Serigne Touba mom wax li ma fi wara dundou may li jeun ki ko mu yokk ton ay élection mënu ma fe ñak baña fek fekk cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ku jara moytu la deug la la amna luy tax ñu yok fan cause yo xamni day tax ñu yok sa dund am cause yo xamni day tax ñu wañi ko lolu mom amna. ñi jang alcorane ñepp xam nañ ko waye Modou Mbacke mi ñu wajal ko ba mu pare bay waji jëm ci liggéey man ci waajtaay rek la nekkon ci waajtaay kep kep la nekkon bi liggéey bi waja tambali lañu ma ilham ngir Serigne Abdou sama rakk ji doon sama nay bu wallahi duma waxant man duma waxant rew mi nak rew mi wax deug yalla lu simple la Seydina lu ni ngeen di def moy wati coalition du siècle yéen ñi nangul réalisme africain yéen ñëpp ngeen ànd ñi ko nanguwul ànd ngeen proposer ay élection anticipée élection général ngeen proposer ko mu bañ a am parrainage ñaari candidat képp jàkkaarloo yéen benn képp ngeen di wut nan ngeen di wute benn da ngeen di wut fukk ak ñaar ñoo xam ne kenn ku nekk carmbat nañ la xam nañ critères yaa ngi critères yi jiite réew ñu lot ma defal leen loterie waaw nga xam ne du ngeen def euh, comme ni américains yi di def di def ay primaire ak yooyu déedéet loterie lañ leen di defal fukk yooyu ak ñaar moom n'importe comment ku ci génnul doon président itam faw nga faw nga doon ministre mënut te ñàkk parce que dañ laa seet ba xam ne mën ngaa jiite réew du dëgg yéen noonu ngeen di def proposé ñi ci des ñi nga xam ne nag nee nañ yi waxi tubaab yi rek lañ gëm te moom la ñuy continuer ñoom ñëpp nañu ànd yéen ñi ci des ñëpp ngeen ànd kon léegi yéen ñi ci des ñëpp ngeen ànd ba noppi proposer nag ay élections anticipées parce que nii situation bi demee mënut a continuer am na loo ne kenn du ci xaar ab khalifa du ci dugg sëriñ Mountakha du dugg ci yooyu vraiment ma leen koy wax de du ci dugg de beneen bi mooy lan mooy Hizbut Tarqiyyah barki Dembo Ndiaye seen jeysun bi jeysun malaa yiin ñu yéene waale ci murid yëpp ak jullit yëpp ak Sénégal yëpp man danoo fexe ba bu déwénee trois cent treize milliards lay doon du dara avec ñoom Seydina Aliou yi organisation kepp la ah man bu boobaa bu ñu nee murit bu nekk na joxe douze million damay joxe bu ñu nee na joxe vingt-huit damay joxe bu ñu joxe murit bu nee na joxe cent millions damay joxe nañu essayé loolu ba xam dinañ xaar état ci dara wala keneen wasalaam foofu laa yema